mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo Rewmi FM 97 point 5 ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi seen émission gox bi ci dibeer gi di dalal Cheikh Gueye di maire Dieuppeul Derklé ponk yi ñu war a waxtaanee bëri na ginnaaw ba mu toogee ci boppu mairie bii di commune bu Derklé euh, ana lan ak lan la fi def ci wàllu réalisation ba tey dañuy àddu ci wàllu politique élection locale yi ñu dëgmal ci weeru janvier atum 2022 gis nañ ku ci ñoo ngi nas ay pexe ngir mën a janoo ak gouvernement bi alors ki faree ci kàddu ci Mass Thiam euh, ci xarale bi aadama jàll ñoo ngi leen nuyu di rafetlu ànd bi monsieur le maire ñoo ngi leen nuyu di la dalal jàmm ci rajo Rewmi FM 97.5. maa ngi leen fay di la ziar di nuyu mboolem ñu ñu déglu yëpp mhm. di am mbégte bokk ak yow émission yi di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax mhm. yàlla jàmm ak salaam ak njëriñ askan bi mhm. jërëjëf euh, monsieur le maire gis nañ ci atum 2014 nga toog ci commune bu commune bu Derklé Euh, alors euh, ban présentation nga ñuy defal ngir auditeurs yi mën a déglu xam commune bu Derklé fan la féetee ci Dakar. nga moy ma rek ma sant yàlla julli ci sangu sangu yi Seydina Mohamed. Mm-hmm. ziar suñu sëriñ suñu sang bu tedd bi Cheikh Mountakha basi mm-hmm. ci li nga xam ni moom la ñu maamam bu tedd jagleel. Mm-hmm. muy weeru safar dëgmal màgg Touba. di lu am solo ci jullit yi rawatina taalibu murid yi. ndax xéwal la boo xam ni. yàlla rek xam fu mu yem mais li ci njëriñ kenn mënu koo natt yàlla ñu ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekk ko te tal ko jóge fi ci jàmm dem ci jàmm fekk fa jàmm dellu soit ci jàmm te lépp lu fa jàmm yàlla mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu di ñaan nit ñi fay dem mbooloo mu fay dem yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm di ñaan ñiy dawal ndaamaar yi ak leneen luy yóbbu nit ñi ci béréb boobu nañ ci ànd ak dal ak tey ndax ci tax ñuy dem ak ci woote bis bi jàmm ak salaam rek la bëgg buñ ci jógee nag laaj nga laaj bu am solo yàlla bu ñu ta tegee ci bopp commune bi en 2014 dañu amoon yéene bu mag am na nag lu ñu def lu bari am na lu des ndax kenn mënul matal lépp dama jàpp ni sax nit ñi seen bopp ñoo la mën a wax li ñu fi def ak lu ñu deful ñu mën rek mooy jundi la wane mbébét ak yéene bi ñu ci gox bi waaye mën naa wax ni. ci présentation bi d'abord laataa ñu dugg ci fond debaat bi. Cheikh Gueye euh, maire membre du Haut Conseil des collectivités territoriales maire de la commune de Dieuppeul-Derklé mm -hmm. membre de la coalition Yewwi Askan Wi mm -hmm. la grande coalition euh, commune bi Dieuppeul commune dieuppeul nga xam ne qui fait partie des dix-neuf communes du département de Dakar mm-hmm. donc c'est une commune référence la commune bu am tur la commune bu am barke la macha allah mm-hmm. di ziar ak di ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon te ko te génn àdduna ku mel ni Abdoulaye Faye nga xam ne moo fi jëkk nekk maire yàlla na xippee aljana firdawsi ku mel ni Alaaji Salif Mbay nekkoon fi maire te jiituñu barsax aussi yàlla na ko yàlla jagleel aljana firdawsi di nuyu di ziar sama rakk Wali Fall mi nga xam ne nekkoon na fi maire di nuyu population jëppal derkale ak kilifa diine yeeg aada yi nga xam ni fi la ñuy di sant population bu baax a baax ci seen taxawaay mais surtout ci seen yéene seen jàppale ak euh, ni ma boolee ci ñoom ndax amuñu lu dul commune bi te suñu yëngutu yëpp moo xam guddi la moo xam bëccëg la moo xam mi ngi taw moo xam mi ngi naaj mooy ite ñi nga xam ni ñooy yeewoo ci commune bi ñuy laaj baatu askan bi en 2014 yéene ak engagement moo ñu ko def la woon tey defe naa ni nit ñi seen bopp ñoo gën a pour wax lu ñu fi def alors ci début waxtaan bi dañ koy def pàcc par pàcc dañ koy dooree wal alors ci wàllu assainissement gis nañ ne euh, waa Dakar ak waa banlieue jamono ji nag ginnaaw taw yu métti yi fi waddoon dañoo amoon njàqare ak tiis ci wàllu inondation alors fii ci commune bu Derklé pare ci capital bi nekk ci xolum Ndakaaru ci politique d'assainissement yan jéego nga ci def en tant que maire d'abord wax ni assainissement du compétence transférée assainissement ça relève de l'ONAS et mën naa wax ni kilifa ONAS yi dañ ci def jéego yu mucc ayib ci ay conditions yu métti man de mën naa seere seen xarañ ak seen bëgg liggéey ak seen mën liggéey ndax saa yu ma amee jafe-jafe ci wàllu assainissement bu ma leen wooyee dañuy ñu taxaw saafara donc ci sama tur ci turu askanu jëppal Derklé yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaan c'est que réew de façon générale dafa am problème d'assainissement mais ay problème yu amoon démb la moo ñu dab damay wax faral di wax ni tant que réglé wuñu problème mu assainissement développement boobu ñu surtout développement durable dana nekk lu jafe ci suñu réew naam am na jéego ak ay pàcc yu yaatu yu ñu ko jagleel mais des na liggéey bi ba léegi am na ñoo xam ne ñi ngi dëkkee ci Dakar wala périphérie dakaar wala même ci biir réew mi bu xiinee rek dañu am njàqare ndax ndaw mi taw bi au lieu que mu nekk xéewal loraange lay mujj donc ñu ngi leen di masawu maa ngi déglu keroog sax am na xale yu faatu ci dënnu yi yi amoon ci foudre bi fi amoon donc yal na yàlla yërëm leen te xale na àjjana ñi ci yàqule aussi ba ndox mi nangu seen kër indi leen loraange yal na yàlla saafara leen euh, ndox xéwal la war a doon surtout suñu réew yi nga xam dañu itteewoo ndox réewu baykat réew mu nga xam la ngay lekk la ci ëpp ci suuf si lay jógee ci gàncax lay jóge ndox am na ci solo euh, alors ca marché Castor gis nañ ni jaaykat yi fa pare nawet bu jotee dañuy jànkonteel jafe-jafe yu métti ndax pour nga am fa accès day métti lool en tant que maire yow loolee lan moo si sa responsabilité waaw xam nga léegi waxoon nga problème assainissement mm-hmm. may fàttali rek problème assainissement ndox mi jóge biir Ndakaar day rogalaat ñëw ba romb suñu gox yi dem zone de captage te zone de captage fa ndox ma daan dajee ñu tudde ko zone de captage dañ koo sëkk def ko ay donc ndox moom fan la war a dem donc le seul problème bu ñuy am moom mooy fi ñuy wax pàkk naaju te at mu nekk dañ fay def liggéey bu mucc ayib ñoo koy nettoyé ñuy ànd ak waa ONAS def gris avaloir tey boo fa demee ay camion ñoo fay garé bërki démb ak bërkaat di démb ñetti fan yi yëpp fa la ñuy xëy fa la ñuy gon parce dafa am oto bu paanoon bu fa garé woon teewoon camion yi mën fa accès ba def liggéey mais jamono yi ñu toll mën naa la wax ni la ne woon ci jafe-jafe tey nuur yëpp saafara nañ loolu mooy problème assainissement problème marché bi nag xam nga marché Afrique rawatina marché Sénégal yi bayre bi moo tax ba nit ñi dootuñu yem ci biir marché bi mais dañuy génn ci booru marché bi ak loolu jege ci marché bi lal di jaay loolu nag day indi loraange ci dëkkee ci wetu marché bi ma leen di massawu te def nañ ci ay jéego naam saafarawuñu lépp am na ay lu des mais daañ ci xar suñu tànku tubéy ba mu mel na mu war a mel alors gis nga ko ci say kàddu mooy ñi nekk ci marché yi dañuy lal ba ci mbedd mi te loolee di indi gàllankoor ak askan ba fa yeewoo ci fàttali sax amoon na ay jàppante yu métti ci diggante population bi ak ñu fare eh, ci marché bi ba téléphone nga gis sax ay jéego ah, alors léegi gisoon nañu si ay jamono yi amoon na benn politique boo tàmbali woon maanaam képp ku fare ci yoonu voie publique bi nga dëggal fii que alors loolu fan nga si toll pour que marché ni nekkee ci marché bi ñu mën a respecté li ñu mel. xam nga loolu du solution. Mhm. provisoire boo dëgër piree dañuy ñëwaat parce que nit ñi dañu dëgër bopp nit ñi aussi métti na métti gi ndóol gi ndóol na boo xam réew mi métti na métti goo xam ne foog ñu am ci lu ñuy yëngatu pour mën faj seen i soxla am lu ñu yóbbu seen njaboot am lu ñu mën a joxe addiya xam nga moo waral sax marché hebdomadaire yi am dëkk bi nu mu xatee marché samedi marché gox bu nekk dina ay ci biir semaine pour am marché hebdomadaire la leen tax a jóg mooy développé secteur économique mais ci développement secteur économique moom la muy yàq di ko indi loraange aussi bari na trop di indi jafe-jafe ci dem beeg dikk bi di indi jafe-jafe ci mboolem luy xeetu mbalit di indi jafe-jafe ci fànn yu bari ba tax na li ci war a def dëgg mooy ànd ak l'état état bi lëkkaloog état bi pour repenser les marchés et je pense am na xibaar bu fi junjoon ba ni war nañu mën délocaliser yenn marché yi pour wut leen place boo xam ne fan la ñu war a mën a nekk bu boobaa bu ñu fa nekkee bu ñu lor kenn te kenn du am benn jafe-jafe gis nañ ne marché Castor bokk na ci marché yi gën a mag fii ci Ndakaaru te gis nañ ne état marché bi gis na ni état marché bi jamono ji mun toll alors liggéey bi fan ngeen si toll pour jëm ko yeesal mu gën a méngoo ak jamono. mooy li ma la xam nga boo fa demee tey bi am na jéego yu mag liggéey bu mag bi ñu fa def. Mhm. lii ëpp ci liggéey bi boo demee li ñuy wax bâtiment bi. Mhm. ànd nañ ci ak entrepreneur ba defaraat euh, cantine ñu bari ba defaraat. pàcc yu bëree bëri bëri mais li am solo mooy foog mu dem en hauteur mais gis nañu bu ñu ñemee en hauteur aussi am na kër yu mu dend ñoo xam ne da ngay jàkkaarloo ak seen salle wala seen chambre à moucher coucher wala seen salle de toilette loolu aussi gàllankoor la il faut nga repenser donc ban type d' aménagement nga mën a def ba yokk bi mën a nekk waaye du indi jafe-jafe ci kër yi nga xam ne ñoom yëpp dañu. léegi alors loolu si sa léegi ban xalaat ngeen ci am maanaam naka ngeen. waaw am na nañu liggéey nañ si ba am plan bi am devis bi yëpp di ci wax mais xam nga li ma lay wax. Hmm. Euh, jaaykat li ma bàyyi njëriñ ngay daan wax rek. sama sëriñ bu mu baax boobu. Hmm. Euh, yal na yàlla yokk leeram dafa ma laa wax naan jaaykat mën nga ko tere lu lekk ba mu des bul jaay donc loolu mooy indi gàllankoor yi mais ñi ngi ay cadre hmm. pour waxtaan ak ñoom pour wax leen li ñuy def. du pour xañ leen waaye pour jàppale leen pour dimbali leen pour toogaay bi gën a rafet pour nekkin mi gën a rafet pour njaay mi gën a mucc ay par exemple entamé ngeen ak ay discussion maanaam kilifa yi pare lu bëree bëri sax jéego yooyu ak discussion yooyu ñu def. Mhm. moo ñu indil tey ñu defar xat kanamu bâtiment wu marché bi. Mhm. tey boo duggee ci biir marché bi da gis ne am na coppite bu mag. Mhm. problème bi kay mooy nit ñi dañuy bëggul toog ci biir marché bi dañuy dem ci mbedd mi pour dogalaale jënd. jaay bu toogee ci biir marché bi ñi jënd si daañu ko fekk ci biir marché bi donc il faut repenser le commerce il faut repenser aussi bâtiment yi nga xam ni mu ñooy ay marché bu dul loolu sax léeg-léeg nga dégg ñu ne marché sàngam tàkk na marché sàngam jéey am na fa donc dafa loolu day wane exigence su repenser vraiment le marché. est-ce que par exemple marché bi en tant que mairie bi yéen yéen a ciy jëlee ay koppar pour seen li muy indi ci koppar nag ak li nit ñi di wax. wuute na loolu marché bi ñu waxantee dëgg te yàlla rek tax et d'ailleurs c'est le seul marché ba léegi ñuy fay ay juuti commerçant ay cent franc la ñuy fay ay cent franc boo boo ko xaymaa ci at mi lu toll ci ay soixante-dix millions c'est insuffisant donc euh, véritablement war nañu ko repenser ko am na ay recettes yu bari yu ñuy échappé parce que ci am organisation bu baax ak toogaay bu baax ci marché bi moom moo ko def alors transition la ñu mën a waxtaanee gis nañ ne yi nekk fii ci capitale bi ñoom daanaka ñi si ëpp sax dañu am jafe-jafe pour am ay koppar bu ñu ko gam-gamlee ak mairie yi nekk ci euh, fas gox yi fasantikoo si réewum Sénégal c'est-à-dire à l'intérieur du pays ndax gis nañ ne yenn ci gox yi fii am nañ ay entreprise alors mairie bu commune bu a Derklé moom fan lay jëlee ay koppar mais mairie bu jëppal dërk la comme mairie yi ci Sénégal yëpp fu mu jëlee koppar lu ci ëpp ci taxe la ba dul taxe yi c'est les fonds de dotation wala les fonds de concours wala pakasel donc foofu la jëlee xaalis bi wala sel donc li ñu daan wax patente donc foofu la xaalis bi di jëlee mais xam nga ni jamono ren ak daaw réew mi ndóol na ndóol xam ne ñi daan fay taxe sax fayatuñu ba lu ñuy fay dañ koy xaaj donc recette maire yi rawatina maire yi jëppal dërk la xam ne essentiel ressource ressource am ci yooyu daan génn li mu am ci koppar dafa wàññeeku bare bare bare bare dafa Covid 19 bi moo indi gàllankoor. gàllankoor yu bëri et puis nit di ci profité aussi à chaque fois. Mhm. di la koy kalaamee di la wax jafe-jafe bi ñu am pour mën a fay. alors koppar yi ngeen doon jëlee ci li nga lim sànq est ce que mën nga ñëw indil ab takk bi nga xam ne ba ngeen jëlee yooyu la koppar ci lii ngeen ko dugal te ñu mën see teg suñu kër. ak bëri mhm. mais waral gox bi pavage bi ci koppar boobu la jóge mboolem jardin yi nga xam tey dañ koy fubale clôture bi ci koppar yi la jóge tali yi am na tali yu bëri yu defar ci koppar bii la jóge ah maternité bii ñu defar ba tabax logement sage-femme bi di ko rénover pour léegi mu pare mais ci koppar yooyu lu jógee donc agent yi fi nekkoon kenn mosu leen recruter te ñu recruter leen ci koppar yooyu lu jógee donc matériel bi ñuy jënd di ko liggéey ci koppar yooyu lu jógee donc koppar bi li ci ëpp ci maire bi lay dellu wala ñuy liggéey ci maire bi. si je comprends bien maanaam koppar yi ngeen jëlee da ngeen koy delloo ci population absolument mhm. alors dindi nga ko sànq ci say kàddu nga wax taxawoon ngeen ay ay district sanitaire euh, alors ci wàllu nekkee ci bi commune bu Dieuppeul Derklé yan jéego nga def ci wàllu wér yaram. bari na bari mooy ñun poste de santé la am. Mm-hmm. am na jàppale nañ leen pour dund ay garab may leen ko. Mm-hmm. def nañ fa aussi ay xarafal xale. Mm-hmm. lu mat ñeenti édition. te xaraf boobu ñuy def. way jur bi du ci jé déedéet fifteen. maire yi mooy jënd yëre njulli yi. yëre njulli yi commerçant yi nekk ci commune bi. te am association ñoo koy ñëw circoncision bi docteur yi yeewoo ci commune bi ak seen moo xaritu docteur yi ñu xam ñooy ànd def ko faj gi maire bi moo koy fay ba ñu tey bëri na ay xale lu góor ay adolescents yuy dox di dem di ñëw mais seen circoncision maire bi moo ko def loolu def nañ ko ci wàllu santé beneen bi aussi avec la ville de Dakar am nañu ay prise en charge en matière de santé ñoo xam dañu am yenn pathologie yoo xam faj ga dafa cher cher boo xam ne ville de Dakar ak atte dañ leen di booleeg moom mu defal leen prise en charge loolu si def nañ ko ci wàllu kër docteur euh, li ma la wax léegi ci poste de santé bi ñu ngi koy defaraat loolu def nañ ko ci wàllu kër docteur ak yeneen prise en charge yu bari yoo xam ni moo xam ci wàllu ay verre ay lunettes yu ñu jox ñenn ñi à moindre coût ou à coût social def nañ ko ci wàllu wàllu wàllu wàllu santé donc véritablement ci wàllu santé def nañ ci jéego yu mag ba ci mbas mi ñu génn ñu doon dañuy def relation ak personnel de santé bi ñi nga xam ne mag lañu dem nañu ba mënatuñu déplacer wu facilement sama oto lay jël di leen dem leen ngeen ñëw ngeen ñu ñooñu foofu loolu def nañ ko ci wàllu santé donc li ñu def ci wàllu santé wax dëgg yàlla bari na alors gis euh, nga ko say kàddu ci wàllu Covid 19 bi ak jeexintal bu mu am fii ci Sénégal ba daanaka ñu doon liggéey ñu bëri dañoo ñàkk seen liggéey alors mairie bi ban politique social la def ngir mën a taxaw askan bi yeewoo fii ci Joppal. mais bari par exemple tey bu may lim ci ay ndaw. yoo xam ne maire yi moo leen tax ñu am permis de conduire. mais c' est des milliers de jeunes. bu may lim ay jigéen ñoo xam dañu am association. du yëngu ci transformation fruits et légumes. du yëngu ci lu mu mënti doon. c' est à dire ci entrepreneuriat féminin. mais maire bi dafa leen di jàppale. dafa leen ay financement ñenn ñi sax ñu boole leen ak ville de Dakar def formation financement barki démb rek moo ci mujj. donc autonomisation de la femme. lu ñu gëm la loolu ñu koy defee ci jigéen ñi loolu ñu koy defee ci ndaw ñi. da leen accompagner pour ñu mënal seen bopp def li nga xam ne moom la wolof Njaay di wax au nga may may jën saa su nekk jàngal ma nu ñu napp moo ko gën ci loolu la ñu nekk donc jéego bu nekk. ñu ngi koy def vraiment pour jàppale pour dimbali askan alors ak ndaw ñi ni ñu ñàkkee xëy euh, jamono yi yow naka ngay accompagner xale yi fii pare ci commune bu Dieuppeul-Derklé mooy li ma la wax léegi mhm. ñii dañ leen di may bourse ñu dem jàngi mhm. ñii ñu yóbbu leen ci école ñu am permis am liggéey mhm. ñii ñu wutal leen ci suñu ay partenaires yi fu ñu mën a bokk liggéey ñii ñu leen di jàppale ah, donc ndaw ñi wax dëgg yàlla ñu ngi jéem pour wàccoon ñoom ci seen bëgg-bëgg et puis di leen orienté ci yoon bu baax. am na mbir yoo xamante ni dañuy nas ay pexe ci wàllu xool naka la ñuy def ba recruter ndaw ñi maanaam ci wàllu nettoyage tali bi est que foofu c'est le cas ici à Dieuppeul-Derklé. tey jii boo ñëwee avec le concours la collaboration de FERA. Mm-hmm. il y a quarante agents. ñoo mm-hmm. xam ni foofu la ñu def. Mm-hmm. suuf si nekk ci mbedd mi ñoom ñoo koy bale. te ñooñu bokkul ak ñi nga xam ñoom la ñu jël ñu nekk agent de assainissement. tey boo leen xayma woon war nañu mat deux cent personnes. ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci loolu. ak ndaw ñi nga xam ne dañ leen former. ñu ñëw di def pari pari yi. Mm-hmm. xale yi yeewoo ci gox bi ñoo koy def. Mm-hmm. ak ndaw ñi nga xam dañ leen jël. ñu nekk ci brigade de sécurité bi. Mm-hmm. donc euh, véritablement ñi ngi jéem. suñu kéemtulaay kattan pour gunge leen pour jàppale leen. alors ci wàllu éducation jàng ak jàngale yan jéego nga si def. foofu aussi bari na tey maa ngi lay soññ pour nga def tout école yu xool ne école yi seen xar kanam nu mu changé école boo ci dem daa gis ni lii vraiment école école bi ñun dañu relever les conditions d'apprentissage te dafa am solo nekkin bi ak école bi nu la moo xam cours bi moo xam classe bi moo xam toilette bi école bi ñu jàkkaarloo toilette yi kenn mënu fa woon dem mais tey reprendre ñu toilette ba mu mucc ayib ñu ngi defaraat salle de classe école Derklé 3 war ko karale war fa indi électricité war fa def pavage comme ni ko defee ci école Derklé 2 defa ko école Derklé 3 defa ko école ab Ibrahima Kouat donc euh, véritablement ñu ngi di jàppale et école buy ubbi bisu ubbi ba la ñu joxe fourniture yi fourniture élèves yi fourniture enseignants yi et accompagner leen aussi donc euh, ci éducation daal def nañ ci jéego yu mag. chaque 4 avril bu ñu naan défilé. dañuy accompagner aussi les meilleurs élèves. wutal leen une forme mu défilé au nom et pour le compte de la commune de Dieuppeul-Derklé. alors ba nga ñëwee ci boppu localité bi ci atum 2014 eh, école yi ñu ci fekkoon da nga yokk lim bi wala da nga ñëw am école yi nga xam ne dafa xaw a di nga indi ci ay jooyee. ñu bëree bëri sax. Mm-hmm. parce que man mi wax yow jàngalekat la. e dama bokk ci ñi nga xam dañu gëm ni. l'éducation c'est la priorité des priorités même ñun ni gëm rasulullah gëm yàlla xam nañu diine jullit xam sàkku xam-xam lu mu doon ci ñun te ñu ngi wax naan sàkku xam-xam jar na dem ba Chine suñu sang bi Seydina Mohamed dégg naa ci mag ñu baax ñu ni Jibril alayhi salaatu wasalaam bu mu agsee ci moom dafa ni ko iqra lii apprendre donc jàng dafa am solo ci ñun moo tax jàng luñ ci def rek xam ni luñ ci def rek xam ni et looloo tax d'ailleurs ñu am partenariat ak yenn université yi ak yenn école privée yi bu yenn étudiants yi ñëwee ñu lëkkaloo ak ville de Dakar may leen ay bourse pour ñu continuer seen jàng ci addu ci jàng ak jàngale addu si leneen loo xamante ni jur na coow fii ci Castor euh, am na benn pont bi nga xam ne daal état bu Sénégal moo ko nasoon pour mën tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba ñu xëy xëy rek ñu dakkal pont bi te loolee sax am na jeexintal ci dem beeg dikk bi en tant que maire gox bi est-ce que ba ñuy dakkal boobu la liggéey yëgal nañ la maa ngi koy dóor dégg ci yow pont bu ñu tuddee Cheikh Amadou Bamba. non oto pont bu ñu bëggoon def. non oto pont bi ñu bëggoon def ci Bourguiba ah. bi. waaw xam nga kooku projet état la aussi. Mm-hmm. état bi ñoom ñooy xayma lu tax ñu war def pont bi. Mm-hmm. ñoom ñooy xayma aussi lu tax lan mooy lan mooy euh, utilité pont boobu. Mm-hmm. waxoon nañu ñëpp. ñëw nañ fii sax waxtaan ak ñun ba ñun dañu bëgg def auto pont foofu pour Touba pour que dem beeg dikki bi mën a gaaw mais bañ demee ba ci biir lañ ñu wax ni bu ñu defee foofu auto pont bi boo gaayee dem ba école normale supérieure da ngay taxaw di rëbb parce que foofu la BRT bi war a jaar gas-gas yi loo tax ñoom ñu dem ba ci biir ñu auto pont bi ñu def gisatuñu njëriñ bi wax dëgg yàlla mais daañu defaraat tali bi mu gën a rafet aménagé ko def ay parking ba xoolin wi ak dëkkuwaay bi ak nekk bi gën a rafet loolu lañ teg suñu loxo que waruñ ko woon planifier laata ñoo ñëw rek par exemple garab yi fa nekkoon am na am na te bokk naa ci ñooñu koy wax ñu wax loolu mais xam nga aussi àdduna bon am na yu ci bëri da nga def enquête. boo demee ba ci biir gis ni lii mu soppeeku nga changé waat. li am solo rek mooy. ñoom comme que yéene bi loolu la woon mais dem nañu ba ci biir. gis ni am na lu gën lool nañ ko soppi. dañu leen ko nangu rek. te lañ fay def mu mucc ayib. méngóog bëgg-bëgg yi nga xam ne ñun am nañ ko ci bërëb boobu. alors en tant que maire commune bi yan mbëgët yi nga bëgg a def ci ci biir localité dafa boobu ba léegi daanaka pour nga jëmmal ko dafa am ay jafe-jafe yan la par exemple. mais li ma bëgg ci gox bi mooy. que gox bi nekk gox boo xam ne képp ku fi yeewoo. Mm-hmm. naan yaa ngi sant yàlla waaye nga gën a mm-hmm. nekk ci jàmm. le problème surtout de sécurité. Mm-hmm. te xam nga sécurité ça ne relève pas de la municipalité. il faut que. état bi jàppale bi sécurité lu mel ni booru pàkk naajo marché Castor terrain Castor jàmbat bi bari na foofu trop surtout ci jaayum trop bi ak xale yi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo Sénégal mm-hmm. loolu war nañ ci jàppale bu baax a baax a baax a baax leneen li mooy laataa loolu en tant que maire est par exemple ay comité de vigilance ci koñ am na population ñoom seen bopp yu taxawal ay comité de sécurité mm-hmm. nga xam nga comme que c'est pas des agents assermentés mm-hmm. et puis ils sont pas outillés bu ñu da dajeeg ay ñoo xam ne ay saay-saay lu ñu wéyu la ñu armé mën nañ leen jam wala ñu leen donc c'est pas leur rôle ñoom li ñu war a def mooy éveil des consciences mooy sensibiliser mais la sécurité au sens républicain du terme c'est l'affaire de l'État est-ce que par exemple commune bi am na ay poste de police wala na poste de police ñi ngi jéem mais aussi ñoom seen jumtukaay moo bariwul toog te surface bi ñuy contrôler dafa yaatu trop naam bëgg nañ ko mais léeg du ñu am ay jafe-jafe mm-hmm. en termes de mobilité en termes de logistique en termes de ressources humaines mm-hmm. donc métti na daal. ce que par exemple yaa ngi jéem a alerter état bi. mais bien sûr ñu ngi lëkkaloo sax. lu ci bari bu amee bu ma xamee dama leen koy wax aussi. Mhm. ànd ak ñoom pour liggéey lool daal nekk na un défi. Mhm. et c'est pas seulement spécifique à la commune de Dieuppeul-Derklé. Mhm. c'est un problème national voire même international. la sécurité des biens et des personnes. donc lu am solo la. ci beneen ponk bi nga bëggoon ànd. beneen ponk bi mooy le pouvoir d'achat des populations. jamono ñuy dund xam nga dund bi metti na lépp yokku te ñun ay góorgóorlu lañu mais ñi ëpp ci ñun ay góorgóorlu lañu boo bëggee boolee dund bu métti liaas bu métti facture courant bu métti bëgg bu école ubbee ngay fay sa jàng doom jëndee ko fourniture bu fa jëm fa am na loo xam ne ça dépasse même la mairie affaire u état la état moo am responsabilité boobu pour fexe ba nit ki lu mu bëgg mu am nga ci njëg yu njëg yu seer. alors dañoo seetlu commune yu nekk fii ci Ndakaaru maanaam ñi ko jiite dañ fari ci guddi yi dañuy am ay projet bëgg a taxawal mais bu ñu euh, sollicité état bi day am gàllankoor est-ce que c'est le cas ici à Dieuppeul. lu wér waxuma sax sollicité mën naa la woon ay bataaxal yoo xam mën naa ko bind chef de l'État du Sénégal ndax gis naa mu koy def. feneen fu dul fii di appuyer les collectivités territoriales bu ma bëggee defar terrain Castor def ci stade municipal moom laa bind ni ko ñu mooy si jàppale commune Dieuppeul Derklé amagul espace boo xam mën na fa tabax mairie ci euh, conseil présidentiel élargi bu ñu defoon premier ministre waxoon na mi ngi ci budget mais ba léegi amuñu ko bindoon naa bataaxal chef de l' état ni ko jàppale ci loolu duñ ko bëgg mais ba léegi amuñu ko lu tax tontu waxuma amaguñ ko sax tontu bi sax la am xaw ma ndax jot na ko war a jot ko mais te yaakaar naa ne jot na ko mais dama jàpp ni chef de l'état chef de l'état ñun ñëpp la ndimbal gi muy def jàppale bi muy def ñëpp la ko war defal warul am xaj ak seen kon ñi muy jàppale ci maire yi dafa am lii discrimination maanaam ku faree ci euh, gouvernement bi ñu jox la sa wàll ku faree ci ku jégi euh, alors ñu xañ la ah dafa mel ni xaw na nuru loolu de xaw ma loolu la wala man de yëguguma ci sama bopp ci waa fànn boobu sàkku naa ndimbal ay yooni yoon ci turu askan wi waaye ba léegi gisuma ndimbal loolu. alors jë bind nga lettre président njiital réew mi en tout est-ce que eh, stade bi nga bëgg est bi. moom laa jëkkee sax. moo mhm. amoon ay digge yu mag yu mu ci defoon. Mhm. waaye ba léegi France daan xëddee. Mhm. moo tax ñu jël suñu. Euh, courage à deux mains. Mhm. dina lu jéem ñun lañ fa mën a def ñu def ko au mu nekk yokkute. tey boo fa demee liggéey bi avancé na lu bari. et file ay fan daa gis sax stade bi xar kanamam changé qualitativement. Mhm. daañ fa def pelouse gazon synthétique. Mhm. daañ fa def benn. Euh, terrain multifonctionnel dañ fa def aussi bâtiment administratif. loo xam mosu fa am. lépp ci ay partenariat. lépp ci jàppale ville de Dakar ak budget commune bi taxe yooyu nga ma wax ci yooyu lañ ko mhm. alors kon bi attan na yenn projet yi ngeen sumb fii. non parce que attanu ko moo tax ñu sàkku jàppale ville de Dakar. Mhm. ndax dafa diis loolu. Mhm. boo bëggoon defoon loolu daanaka dootoo fayati agent yi. te ma laal ban. diiru bu mu fi nekkee ba léegi. weer wu dee ñu fay agent yi. na mais. yàlla ngi góorgóorlu lool yàlla na sax dëgg. allahumma amin alors 2014 2021 nga nekk ci bopp localité est ce que bilan bi mën nañu wax bilan bu satisfaisant la. mais très satisfaisant. Mm-hmm. et maa ngi lay ñaan sax nga dem ci askan wi laaj leen. Mm-hmm. ñoo gën placé pour mm-hmm. mais man de defe naa ni la ma waxoon ba may bëgg dinaa ko def. bu ma deful lépp la ëpp def naa ko te ma koy sant yàlla sant ki askan wi ak ñi nga xam ne ñoom ñoom laa bokk liggéey bi am na jéego yu mag a mag a mag yu ñu def yoo xam ni diiru mairie bi nekk fi Moustapha bàkkuwuma nag mais damay wax dëgg te yàlla rek tax ba léegi gis nga pour nga def sa émission bi sax yàgg na loolu mm-hmm. ñu bari ñi nga gis ñu ñëw fii dañ ma ittee woon parce que dañu war dem màggalu Tuba mm-hmm. comme ni niñ ko baaxoo di def at mu nekk di sàkku ci ndimbal ak jàppale pour mën a dem màggal noonu ñu koy defee màggalu Tuba lañ koy def gàmmu Tiwaawan ak gàmmu yeneen dëkk mm-hmm. noonu lañ koy defee bu Pâques jotee noonu la koy def bu Ramadan jotee noonu lañ koy defee bu Tabaski jotee noonu lañ koy def bu koor jotee noonu lañ koy def sax bu jàmm rek moo xam xew xew jàmm la ku ñuy tudd wala ku ñuy teg wala safaan bu ku génn àdduna. mën nañu wax ni kon par exemple liggéey bi ngay def fii ci commune bi askan wi gis nañ seen bopp à 100 pour cent wala am na ñoo xam euh, am na quelque. ñi ëpp daal gis nañ seen bopp. Mm-hmm. mais comme li mu la wax rek daanu dañu suuf. Mm-hmm. ñëpp mënuñu see gis seen bopp. Ah. mais damay jàpp ni man lan ma war a defal boo ko defalee sama morom wala sama dëkkandoo mel na ni man nga ko defal. Mm-hmm. waaye man a mën a mën wax wax ji mooy. est-ce que gis ngeen te mën naa wax teg sama loxo ci alxuraan kaamil alxuraan bi wax dëgg yàlla amuñu ci xaaj ak seen def nañu la ñu mën mm-hmm. yéene bi sax weesu nañ ak volonté mais nit ki mënul def lu dul la mu mën la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. ñu àddu ci wàllu politique yéen a ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM 97 point 5 élection locale yi jàpp nañ ko jàppati ko puus ko bi nag ñu jàpp ko ci weeru janvier atum 2022 alors laataa ñoo dugg fond ci wàllu politique gis nañ ci ayu bés yële ñu génn euh, ci wàllu coow bi amoon ci certificat de résidence yi ko nga génnoo ko ŋàññi ko nga ni nga tuumaal sax njiital d'abord di Aboubacar Sadikh Bèye est-ce que mën nga dellu si waat si coow ak naka la demee woon. xam nga bi ñu dégmalee élection yi. ba mhm. ni daañu ubbi commission de révision exceptionnelle. la mhm. nga xam ni sax tegul ci yoon ci yoon yi loi bi dafa ni at mu mhm. am na diir boo xam ci tee war ko ubbi. pour def révision. loolu defuñu ay at ba lii dem. ba mu ñu demee nag ñu ni lii moo mën a am. ñi ñi amagul woon âge vote maanaam du huit ans te am ko léegi war nañu mën a bind ñi nga xam ne seen carte d'identité dañ ci bindoon non inscrit sur liste war nañu mën a bind ñi nga xam ni dañ fi dëkkoon gi ginnaaw ñu dëkki feneen wala ñuy toxu fi ñoo bëgg dëkk fii baa ñuy liggéey fii ñoonu yoon way may na leen ñu dem bindu pour mën a wote fii loolu mooy transfert mais ñoom lañ doon def ku transfert jëlee ay nit ñu dëkk Sangalkam ñu dëkk Euh, euh, Koussaana yu dëkk Yëmbal yu dëkk Tëngéej yu dëkk Pikine di leen indi fii pour bind leen loolu yoon da koy aaye parce que ñooñu yeewuñu fi loi bi dafa ni maire dañ ko war a fal fa muy yeewoo te man fii laa yeewoo ak askan bi di dund ak ñoom buy taw ndox mi yi dal seen kaw day dal sama kaw bu courant bi coupé seen kër day coupé sama kër. rus naa sama wut groupe. bu courant bi coupé ñu naan ah ñun de suñ courant coupé na waaye maire lamp yaa ngi tàkk ndax dafa am ko jomm naan ko. donc lépp luy bànneex dama koy dëkk ak ñoom bokk ak ñoom. lépp luy safaan ma dama koy dëkk bokk ak ñoom. donc CESCAR yooyu transfert yooyu ñuy def. moom ci boppam moo dugal boppam. moom moo wax ci rajo yeeg télé ñëpp dégg ko. mu ni am na niveau niveau boo xam ni war nañ ko mën a am pour mën a créer condition victoire u seen coalition mais li mu wax c'est dangereux dafa garaaw dama xamul sax ndax déglu na bu baax li mu wax et loolu nag dañ ko topp ba ci kanamu yoon parce que jaaduwul lu toll ni jëppal dëkkale transfert nga indi fi lu mat toll ci mille cinq cent six transfert mais ñun fu ñu jógee mille nit bu ñu dajewoon fenn yow nga gis leen nga jaaxle nga ne nit ñi fu ñu jógee ay kaar lañ fi daan indi bi ñuy wax ay kaar yi coowal kaar yi jub na dañuy indi oto ba jub daal di wàcce ñooñu ñu ñëw di inscrire ci centre ba bis bi ñu koy arrêté dem nañu ba minuit passé mais ñooñu daañ leen topp may profité sa rajo bi di leen wax ni képp ku fi indi ci loolu te dëkkoo fi ñu bind la daañu la bàyyi xel bis dana jot nga ñëw nii da ngay voté si fii keroog bisu voté yi buñ la xamee lu la ci dal yaa ko yóbbee sa bopp. fii ku fi dëkkul du fi voté. fii ku fi yeewul du fi voté. 1608 xam nga ëpp na ci jëmmi commune ci Pointe-à-Pitre. Moustapha. ëpp na tuuru. mais alors est-ce que indi ngeen ci ay jooyal yi maanaam ñi ñëw bind fii te dëkkuñu fi alors est-ce que rectifié ngeen le tir. ma mooy li ma wax léegi. Mhm. man kay bu lu may netti dama ko dund ak samay gars. Mhm. ay ñoo xam ne parce que ñu fi xamuñu fan mooy. commission bi fa la nekk ci centre social ñu ñëw fii ci mairie bi di laajte ba ñu tëj leen ci biir mairie bi ñu naan diw mooy ñu da ngeen dañ leen indi fii dañ di jox ceebal dañ leen di financé ñoom li ñu def dafa ëpp dañuy wër naan nit ñi jox leen seen carte d'identité dañ leen di financé jox leen seen carte d'identité dañu def nangam mais ay kàcc kese la bu dëgg ci fàttali sax euh, bu coow loolu ba mu amee jokkoo woon naa ci fi euh, yow ak téléphone ci rajo Rewmi FM nga wax ne da leen yóbbu ci yoon. alors ci fan la toll. ba maa ci loolu la. Mhm. jël nañu avocat pour topp ko. pour topp mbir mi. Mhm. dem nañu fa ñu waroon def def récupéré bi ñu ngi xaar maintenant ba ñu affiché liste ba mu valable ñu xool ban taxawaay lañ fi am fii ba jouru vote ba xeex boobu duñ ko bàyyi moo tax jouru vote ba daañu taxaw wër commune bi képp ko fa naroon dugg te dëkkuloo fi naa da ngay voté wala loo ci góobi gàll alors ñenn ñi wax ni lu mu nekk sa directeur politique euh, moo tax nga yor euh, boobu bii la posture alors lan nga siy tontu li mu nekk maanaam sa ku jëw wala sax li mu bëgg a jël boobu la man amoo man jullit laa fas yéene doon moom laa ñaan suñu borom yàlla ma yàlla def dëgg dëgg jullit te jullit day gëm lii ma doon tey muy meer du sama coowara boobu ndimbal ak jàppale ak ñi suñu borom bindoon bu ma ko waree continuer waat doon yàlla lay sow boo fi jeexalee yàlla lay sow li may ñaan kañ mooy jàmm ak salaam ak wér-gu-yaram te wóor na ma ni li ñu fi def ak lu ñuy seqi askan wi keroog bu élection yi buñ ko tëggaatee bu nee wiiw Cheikh Gueye lañ naan wiiw alors am na ñuy wax euh, seen vacance ñi da am na liggéey ñu ci bëggoon dafa ci wàllu pavage ñu ni yow yaa galang li ni mel est-ce que loolee lu am la mais bokk na ci li ngay wax léegi pourquoi ngay def liggéeyu pavage yow doo maire mm-hmm. doo adjoint au maire mm-hmm. doo conseil municipal mm-hmm. nga ñëw sa coobaru bopp rek naan da def lii kooku ban réew la nekk c'est de l'indiscipline c'est de l'ignorance c'est de l'inélégance l'inélégance politique affaire u gentleman la mais yooyu da koy def pour jéem ñoo boole askan bi bu bëggee pare wala liggéey am na fu mu war a liggéey kenn nommewu ko directeur commune Dieuppeul Derklé fañ ko nommee directeur am na liggéey bu rëy bu ko fay xaar ak port yu mel ni moom na dem liggéey foofu alors dafa ñëw rek tàmbali liggéey bi sans ton consentement. musta am. am na ci benn jardin noonu lañ fa def ñu arrêté liggéey bi dëkk bi nag dafa am yoon. mais bu fekkee par exemple loo xamante ne askan yi dañ ciy gis seen bopp loo xamante ne bënooru askan bi est-ce que mënoo bàyyi par exemple mu def li ni mel ñëpp jariñu si. waaw mais même bu dee bënooru askan bi kër boo ci dugg da ngay jaar ci buntu bi. Mhm. ñun bañuñu ko def mais booy defar ñëwal ànd ak ñun ñu defar yoon sax defe ni même ñun booy may dara mairie bi man awma sañ-sañu nangu ko je suis obligé yóbbu ko conseil municipal pour ñu def acceptation de don rawatina liggéey sa kër gi nga dëkk boo ko bëggee tabax da ngay wuti autorisation de construire te yaa moom kër gi donc bu fekkee ni dëgg rek moo ko ci dugal defar rek moo ko ci dugal njëriñu askan rek moo ko ci dugal mais quest ki qui l'empêche mu jaar ci conseil municipal bi ñu nangu ko mu defar ko ñu ànd defar ko. Mm-hmm. mais léegi kon da dafa arrêté liggéey yooyu mais dafay aw ci yoon. Mm-hmm. mënuñu la fal nag nga nekk borom kër di lambar lambare fu waay jógee lu ko neex def. Mm-hmm. kër gi amul am ne loolu mu a nekk. ki ñu fal maire moo war def liggéey bi du ma nangu aussi loo xam ne maa ko war def keneen du ko def. et du ma ko xañ aussi asken bi bu fekkee ni lii mënuma ko te nammuma ko def gis naa ko war a def boo ñëwee ni da koo bëgg a defar ànd ci ak man ñu ànd def ko. alors bu jaaree ci yoon yi rek mën na ko def. billaay bu jaaree ci yoon ñu ànd defal ko. Mm-hmm. parce que lu jëmal askan wi kanam rek laa bëgguma leneen. Mm-hmm. ba tey si wàllu politique ak élection locale yi ñu dëgmal ci weeru janvier atum gis nañ ni opposition bi ñoom ñoo ngi nas ay pexe ngir mën a gagné ci commune yu bëri bañ taxawal sax ab coalition bu mag tuddee ko yeewi askan wi ki fent boobu la xalaat sax Khalifa Ababacar Sall ci la bokk ak waa PUR ak Ousmane Sonko alors lan mooy xemmemteefu boobu la coalition maanaam pour boobu. nga xam nga ni réew ku ko wax ku ko waxul yëpp métti la def. bu doon nit da nga naan fépp mit fan yi ñu génn am na ñu ñuy jàpp ñoo xam dañu bëggoon marche wane seen naqar ci dëgg yu cher yi loolu ak politique bu bon bi nga xam ne moo am ci réew mi mu am ndey ak kumba mu amul ndey boo bokkee seen bi loolu neex def dara du la si gis nga ko bërki démb ci coowal passeport yeeg coowal député boobu ñu jàpp ci mbuxum bu mu def ay jëf yoo xam musta am ci Sénégal ci ay ay ay bii la am politique c'est pour changer vie wu pour avoir un Sénégal meilleur ñun naka la ñuy def ñun nañu booloo Benno bokk doy bokk bari taxawal coalition bu ñuy wax yeewi askan wi parce que dañu jàpp ni askan wi dañ leen a yeew dañu nangu seen baat dañu leen di boom tey jii secteur boo lam ay métti màggalu Tuubaa ji ma ci profité bu ñu deful ndànk am na ñoo xam daa ñu am yéen bëgg dem mais jafe-jafe essence beeg paas yi da leen gàllankoor ba seen dem dana jafe donc nañ ko woyofal nañ ko laabiral ba nit ñi bëgg a dem dem dem dem ci jàmm ak salaam loolu lépp la ñu dajale nañu nañu taxawal coalition mm-hmm. tudde ko yeewi askan wi mm-hmm. yeewi ko ci xel mm-hmm. ubbi xelam xam ni ñii dañu leen di noot yeewi ko ci xelam xam ni waa ji amul sañ-sañu nekkaat déposer troisième candidature ñaar la waxoon na yem ci ñaar yeewi askan wi ñu xam ne li ñuy dund yàlla tegu leen ko keneen tegu leen ko mbindeef na ñoom moo leen ko teg ñoom bu ñu jëlee alalu réew mi di ko pasar pasaree di ko noncé ba sekkee mel ni porc bu ñu destiné aux festivités d'une première communion la ëpp ci askan wi ñu ngi sukkuraat ñu ngi bëgg dee nit ñaa ngi dee ci opital yi ñuy ñàkk ja garab ñàkk lu ñu fajoo sama doomu ndey bii toog suba ngoon ci loolu ñu jox prise en charge yi indi fi en matière de santé ci ay feebar yu tax alal foofu la war a Yewwi Askan Wi ni leen alal ji fi ñu koy dugal pour ay dépenses de prestige dafa doy ay terre ay bus ay avion lépp ay milliards yi milliards te milliards yooyu mënoon tabax oh, hôpital milliards yooyu mënoon tabax ay école milliards yooyu mënoon dem ci askan wi milliards yooyu mënoon dimbali baykat yi sàmmkat yi nappkat yi néew doole yi. alors loolu moo tax a jóg boobu la. ñu ni la coalition bi jóg taxaw. Euh, pour ngeen mën a jàmmaarloog ñoom. Mhm. fexe ba communes yi ëpp ci Sénégal moo xam ville la moo xam département la moo xam commune la. Mhm. ñu remporté ko. alors naka ngeen koy créer condition boo xam ne aussi bu ñu demee deux mille vingt deux ci élection député yi. Mhm. ñu ëpp fa député. gis euh, ngir élection présidentielle yi ah. daf ko jël réew mi soppi ko ah. jàllar bi ko ba réew mi nekk ci anam ñu ci ay gis nañ ne coalition bi taxawal ngeen ko waaye seen liggéey moo di leader yi dafa bëri est-ce que maanaam ay kuy mën nañoo bokk yooyu mbalka waaw ndawal gu bari te wuute ci ndab mm-hmm. yàqul yàqul ñam mm-hmm. ndawal gu bëri mm-hmm. te wuute ci ndab yàqul ñam tubaab yi dañu ni la beauté du tapis se trouve dans la diversité des couleurs li ñuy bari bari wuute wuñu ñoo bokk xalaat ñoo bokk gis-gis. mën nañu ànd dem. mais problème leadership est-ce que du posé. mosut am te du am mukk. alors suñu bëgg-bëgg. Mhm. ak objectif yi ñu am. Mhm. moo ëpp fuuf problème leadership parce que problème leadership problème de personne la rek. Mhm. alors naka ngeen di tànnee maire yi. ñuy tànnee maire yi mooy dañu ni coalition bi gox bu nekk. ña bokk ci coalition bi nañu dajee waxtaan tànn seen maire bu ñu amee jafe-jafe créé nañu benn commission boo xam ne moom mooy régler def ay arbitrage ci conflit yooyu na raam ñu dem fa waxtaan fa ba tàppe xol yi bés xol yi nit ñi bokk ndey bokk bàyyi juboo jiital ko ñu war a yi am ci moom yaakaar am ci moom mu ne jël ndam la ñu ànd liggéey. ëllëg lu ñu am ñu bokk. mais gis nañ seen coalition bi ba ngeen ko taxawalee ay bés képp lañ ci teg Bougane Gueye Dany génn ni consensus maanaam waxtaan euh, daanaka amul lan ngay tontu ci loolu. bëggu man man nag damay def politique boo xam def politique boo xam. Mhm. damay xas. Mhm. wala di wax di ñaaw wala di saaga wala di wax ci nit. Mhm. Bougane suma rakk la suma xarit lu ko baax loos. jàmm ak salaam laa seqal nii. moom nga war a laaj lu tax mu génn ci man de la ma xam mën ko def naa ko sama kémtu lay kàttan pour woo ko ni ko fi mooy sa lang ñëwal bokk fii ci coalition woo naa ko gis naa ak moom waxtaan naa ak moom moom nag man forcé ma ko la muy def ak la muy wax moom la moom ba mu jàppee ni moom fii gis na ni xaju fi def na la mu war a def te àdduna noonu la ku nekk rek la nga sentir boobu la coalition est-ce que ma choc des ambitions municipales maanaam ngeen bokk coalition ba pare ngeen bëgg jiite même localité bi euh, exemple gis nañu Barthélémy Dias fësal na euh, bëgg-bëggam bëgg a jiite euh, ville de Dakar te Soham Wardini bu mu faree ci yéen moom tamit bëgg na taxaw moom nekkaat maire alors loolu naka ngeen ngay jooy li wala sax naka ngeen di def bay indi saafara ci li ñu mel. man ni des ambitions ci àdduna lañ ko fekk fërante bàyyi. Mhm. c' est tout normal. Mhm. histoire suñu maam Adama aw sax mën gis ci benn fànn am na choc des ambitions. da leen génn aljana mhm. donc choc des ambitions charme la sax ci politique. c' est le jeu de compétition c' est tout normal en démocratie. nit ñi am bëgg-bëgg li doon yéeme kenn di jaaxal mooy nga doo bëgg dara ku bëggul dara du nit nit bëgg da am yéene mais lépp nag nga teg ko ci dal teg ko ci xam-xam teg ko ci fulla ak fayda bu amee bu ci waxtaan juddoo rek jàmm moo ci tegu juboo ak déggoo moo ci comme niñ ko jinjee maanaam waxtaan est-ce que préalable am na ci loolu ngeen concerté acteurs politiques yëpp ngeen mën a waxtaan ni par exemple Cheikh Gueye bu nekkee ci commune bu Derklé keneen warul ñëw nii dafay jiite boobu la commune te ngeen nekk ci même coalition bi maa ngi bëgg yàgg ci làngu politique bi nag hmm. te du lu bees hmm. li am nii hmm. gënoon na fi tar même bu doon parti rek benn parti rek dana am choc des ambitions rawatina ay parti parti yu booloo mais lépp ci jàmm lay mujjee ci waxtaan lay mujjee. ba tey ci wàllu politique ak élection locale yi gis nañu élection yi mujj yi am euh, daanaka Benno Bokk Yaakaar bañ ko taxaw léegi mu nekk grande coalition ba léegi tasawul élection yi mujj yi ngeen dem yëpp moom dafa leen gagné ci ku jéggi bi naka ngeen di def wala sax yan stratégie ngeen di tax pour mën a gagné Benno Bokk Yaakaar. ànduma ci loolu. Hmm. maanaam élection yi fi am noonu 2014 ku gañe woon. gis nañ ne taxawu Dakar gañe woon. élection au conseil ku gañe taxawu Dakar gañe woon. élection député yi ci topp. mais taxawu Dakar kese nekkul ci langum politique. non dama lay jox exemple ak ñeneen man li ma xam li ma doon laal ma ñëw. Mhm. élection au conseil yi ku gañe woon taxawu Dakar gañe woon. élection député yi ku gañe taxawu Dakar gañe woon. ba ñuy waaj a mais ku am majorité lu jaay ay résultats. wëlbati affaire yi. kan moo am majorité à l' assemblée nationale. majorité de l' assemblée nationale ñoom la. Mm-hmm. parce que gis nañ élection yi itam wii weer par noonu gis nañ ñu fare ci kujje gi ñoo gagné moo tax euh, ma laaj la par exemple yan pexe ngeen ni nas pour mën a janoo. moom bokk ndey bokk bay parce que mooy li askan yu bëgg. Mm-hmm. mooy li peuple yu bëgg. Mm-hmm. peuple bi ñun la bëgg peuple bi li ñu wax la bëgg peuple bi d'accord ñu ci jox ay moyen pour que Benno Bokk Yaakaar ki leen jiite di présenter waat candidat en 2024 alors seen coalition bi coalition par circonstance la wala coalition bi dafay wéy laaj naa la ko mhm. nee la ànd bi ñuy ànd ànd abadan la ñu ànd ci local yi ànd ci législative yi supervisé yi présidentielle yi bu ñu demee ku bëgg nodd nodd ku jiitu ci deuxième tour bi ñu jàppale la nga nekk président ñu ànd liggéey réew mi la liggéey bu wér boo xam ne képp kuy Sénégal yi ak fépp mënti nekk daa ci gis sa bopp réew mi am jàmm liggéey am njàng mi wér pajugu yi wér réew bi jëm ci kanam loolu mooy suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg. alors seen coalition bi Manko Taxawu Sénégal te Khalifa Ababacar Sall jiite ko gis nañ yow nga fës ci lool est-ce que par exemple gisoon nañ ci ay jamono Bamba Fall mu ngi si woon Barthélémy Dias Bamba Fall ñu wax am xel xalaat ni dafa mel ni ko rocceeku ndax gisatuñ ñuy ànd ak yéen est que par exemple léegi moom bokkaat na ci boobu la coalition wala sax musul génn. moom mos see génn mos see génn euh, te ba léegi aussi ñu ngi dox di dajewaat pour booluwaat bo njaboot gi parce que njaboot gi njaboot gi njaboot gi benn la euh, àdduna nag dafa tëri di mais lu muy tëri di tëri di nit ñi war nañ dellu seen xel ba xam lan mooy seen cër ak lan moo war a nekk seen taxawaay taxawaay maa ngi koo taxawu Sénégal démb tey jii lañ ko gën a firndeel ci biir coalition bi nga xam ni mooy coalition Yewwi Askan moo tax ñuy ñaax kenn ku nekk ci ñun tàmbalee ko ci man xalifa ak ñeneen ñi bokk ci coalition bi yëpp kenn ku nekk na nga fàtte sa bopp te jiital njëriñu askan wi muy njëriñu coalition Yewwi Askan Khalifa seen leader moom ban taxawaay lay am ci élection yi taxawaayu defar taxawaayu njiit taxawaayu kilifa taxawaayu booloo taxawaayu benn taxawaayu nas ngir boole ñëpp dem seetu ku nekk dem wax ku nekk dem woo ku nekk ni ko ñëwal li ngay def am nga ci cër am nga ci place am nga ci taxawaay ñëwal nga bay sa ñu ko dellu si ci commune Dieuppeul Derklé gis nañ yaa ngi def ay réunion ni ki rek amoon na réunion bu mag fii ci boobu la commune lan mooy sabab yooyu la réunion ndax moo xam nga sama éducation la aussi lépp lu may def dama koy waxtaan mm-hmm. du ma jóg rek tël di def déedéet mm-hmm. lu ma xalaat dinaa ko waxtaani ña ma ko war waxtaani lu may def bokk ko ak ña ma koy def ñu ànd def looloo gën loolu gën a loolu bu amee rek loolu bu amee yàlla def ci loxo te loolu lay sàkk loolu lay ñaan suñu borom alors loolu moo sabab boobu la yoon Cheikh Gueye ku ko xam am ko ci wàllu politique LD lañ ko xamee woon léegi ñu gis muy ànd ak Khalifa Sall lan moo changé entre temps dara changé mhm. man LD MPT laa nekkoon mhm. ak Abdoulaye Bathily un grand leader un grand homme bi LDMPT demee ba Abdoulaye Bathily bàyyi Mamadou Lo wuutu ko mu nekk aussi un grand homme un grand intellectuel quelqu'un qui a servi le pays qui a servi la nation qui a servi l'Afrique et le monde entier surtout en matière d'éducation ci anam yooyu la ñu am ay jafe-jafe am ñu jàpp ni ñoom seen yoon mooy yoonu Benno Bokk Yaakaar ñeneen ñi leen yoon woowu de du yoon bu baax du yoon bu ñu jëpp woon yoonu seen yoon mooy rester debout et rester fidèle aux idéaux la Ligue démocratique mu indi LD dëgg ma xam ne yoon woowu mooy sama yoon man yoonu ngor yoonu sàmmunteeg wàccoo sartu parti bi ak bëgg-bëgg askan ma nekk ci LD Debout ba yàlla def indi taxaw Dakar ma bokk ci taxaw Dakar teewul ma nekk toujours LD Debout ba tey jii taxaw Dakar boobu nekk taxaw senegal ma nekk ba léegi ci LD Debout ba tey taxawu Sénégal dem ci yeewi askan wi ma nekk LD Debout. kon ba léegi yaa ngi LD Debout. ba léegi maa ngi LD Debout. mais dañoo gis ni sax taxawaay ci coalition Manko Taxawu Sénégal la gën a fës par rapport ak LD. waaw xam nga loolu aussi lu normal mhm. man bëgguma am jikkoy kàkkatar walla jikkoy daafeer. Mhm. dama jàpp ni bu ma nekkee LD Debout. nekk taxawu Sénégal am fa cër bu mag aussi bu may dem taxawu Sénégal da dem LD debout léeg-léeg position yi nekk position contradictoire dootuñu ma ñemee wala dañ may tam alors kon est-ce que jotul par exemple nga tekki sa ndomba tànk fee nga farewoo fee ndomba tànk pour lan c'est-à-dire nga démissionné wu ci parti bi lu tax may démissionné yoon wi LD taxawu Sénégal jël mm-hmm. mais kooku mooy yoonu LD debout ci ligne boobu laa nekk mu kañ da nga naan nan nga war a def ba yoonu LD Debout ak yoonu taxawu Dakar nekk benn yoon est-ce def ay jéego. ci jéego yu mag la ma mën ak la ma xam yëpp maa ngi ko cee def. ndax ñoo bokk histoire. ñoo bokk ëllëg aussi. te ci wet du ñu ñaar rek am na ñoo xam ni ñu ne yoom ñoo bokk nekkin. dañ leen cee war a woo. bokk benn jëmukaay. yaa am parti ci parti Sénégal bari na. ñi bokk jëmukaay du ñu boole nekk benn dànk loolu moo ñu noppal mooy noppal réew yi mooy yombalal liggéey man ci loolu lay dox alors ñu àddu ci actualité bi gis nañu fan yi coow ñu njëkkee ko ci njëgu dund gi nu mu yokkee ba kuréel yi fare ci société civile bi rawatina mouvement ñoo lànk ak mouvement frappe ak yeneen i sax euh, mouvement bëggoon amal ak manifestation ni ki démb ca place de la nation mais kilifa yi dañoo interdire li ni mel ngir naqarlu njëgu dund gi nu mu yokkee yow en tant que maire gis-gis nga am ci ma rafetlu hmm. yow njëg yi sell constitution moo may nit ki bu amee lu ko naqari mu dox dox doxu ñox lu ñu leen di arrêté kii am lu ko metti ndax dundu gu seer mais yow li nga war boo mënul wàññi njëg yi bàyyi ko au moins mu naqaru waaye dinaa la dóor ba noppi te doo fi jooyee loolu mënta am rafetul Sénégal dëppwul noonu Abdoulaye bi bu fi nekk dafa bañ ba ni même bu ngeen di marche mën ngeen ko wàññi ba leen takk brassard rouge mais ñii dañu bëgg a wane seen ñàkk àndi ci dundu gu seer gi rek loolu kenn jarul di sànni ay grenade jarul di jàpp ay nit di yóbbu police jar na ko billaay jaru ko dañ leen lu koy saafara mooy mhm. ah dégg naa leen dinaa jéem a wàññi njëg yi ba dund gi nekk dund goo xam dund gu ci ay loolu moo doon tontu bi mais tontu bi du leen bundu leen jàpp leen yóbbu leen lu muy jëriñ leen ngay saafara saafara woon dara alors beneen actualité bi mooy coowal passeport diplomatique yi ñaari député lañ ci joxar bi baaraamu euh, mu tuuma en tant que way politique loolee ban gis-gis ah, mm-hmm. la ay gii mm-hmm. li ma ci ay njaaxum mm-hmm. et bawoo ci ay kilifa réew mi ñoo xam ne ñoo yor baatu réew mi rafetul jekkul jàddu ñu leen tudd ci mel ni c'est extrêmement loolu li ko def rek mooy bëgg-bëgg rek ñàkk doylu rek ñàkk gëm yàlla nañu yem ci li ñu yàlla sédd nañu doyloo ci li ñu yàlla jox bañ a uti lu ñu amul wala lu ñu mënul bëgg roy lu nekkul ci ñun Sénégal daf bëgg yeewu tey nekk milliardaire tey te du def dara mm-hmm. di lijjanteeg pour xaalis da koy liggéey da koy ñax mm-hmm. député yi ñuy joxar bi baaraamu tuuma dafa ñëw ah, dafa ruslu sax ban taxawaay lañ ci war am dañoo war a dindi seen immunité parlementaire ñu woolu leen déw leen wala alors ah, que ñëpp xam nañu ban taxawaay la ci assemblée mm-hmm. am na ñoo xam moins que dañu lever seen immunité moins que donc bu ñu nax mi ñi waaye fii jàkk yeewoo fi ay nit jaayee fi dëkk la war a def xam nañ ko nañ ko def noppal nit ñi dafa mel ni kat kumba am ndey ak kumba amul ndey bi ñenn ñi ko kumba boo gis am na ndey mm-hmm. dafa am kumba bu ñu amal ndey ak kumba bu ñu nangul amal ndey alors émission gox bi rajo Rewmi FM 97 point 5 ñoo ngi ciy njeextalu émission bi monsieur le maire bu jiite jëppal Derklé ñu bàyyi la nga tàggatoo ak yi rajo Rewmi FM 97 point 5. Eh, ginnaaw bi ñu sant ci sangu sangu yi Seydina Mohamed. sant suñu ñaari wajur. sant tey ñaan suñu xalif suñu sëriñ Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg te wér. suñu loxo. di toroxlu si kanamu suñu boroom du ko ñaan mu defal nu nawetu jàmm mu def jàmm ci réew mi mu tàppe xol yi def ñu dëgg dëgg ak gëm ñu li gën ci ñun et defal ñu xéwal aussi defal ñu jàmm ak salaam élection yi ñu déglu yàlla ñu suñu borom defal ndam lu mucc ay réew mi yàlla nekk ci jàmm ñu réeroon yàlla leen yàlla wàññi ba ñu wëññi ñu tawat yàlla na yàlla saafara leen ñu nekk ci kër ñu ñu teg loxo yàlla na yàlla may jàmm ñu nekk ci hôpital yi ak bëriw fayukaay yi yàlla na leen defal jàmm ak salaam ba ñu jubbi seen kër ñii amul dépense yàlla na yàlla jox leen dépense def dara seen poche yàlla na yàlla def ñi mën dimbali ñi mënul ñi am dimbali ñu amul yàlla na yàlla def ñu bokkoo ak bennoo bi ñuy wax mu nekk dëgg dëgg ci ñun ñu koy feeñal ci suñu jëf feeñal ko suñu wax te bañ a xebaate bañ a beew bañ a rëy bañ a réew yàlla mën na ko yàlla ñu ci yàlla defal allahuma amin jërëjëf le maire Cheikh Gueye jiite commune bu Dieuppeul Derklé mu nekkoon seen émission gox bi ci rajo Rewmi FM 97 point 5 ki woon ci kàddu gi Mass Thiam ci xarale gi Adama Diallo di jaajëfal faatu Baba Fall ci coordination bi di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf